حمدا لمنزل الدنا والدين ومنزل الشباب asalaamaaleykum amis téléspectateurs yi seetaan seen télévision Makhama TV tey nag la santé d'abord moo ñëwaat ak yéen rek di leen di defal seen émission santé comme d'habitude gannaaw bañ leen nuyoo ba pare ziar leen ñu ngi leen jox seen wàccuwaay bu wër di leen wax ne nag tey euh, la santé d'abord mu ngi leen andil comme thème du jour muy la drépanocytose la drépanocytose nag moom lañ leen andil comme thème du jour ñu siy ànd ba léegi rek ak ki nga xamante ne docteur Elagi, Hadji nek ki nga xamantene rek moy euh, médecin interne des hôpitaux comme ni ma waxé won woon euh, passé rek mom la ñuy di ko nuyu di ko ziar di ko jox wayam bu baax baax euh, docteur gannaaw ban la nuyu ba paré ñu ngi lay bayyi nga nuyenté téléspectateurs yi lay sétane ci makama TV. ñu ngi lay fay soxna Anta di nuyu bu baax mbokki téléspectateurs yi safo di andak ak TV di santat bu baax ci kóolute gi ngeen am ba dalalat ñu tay seen plateau. ñu raw waxtaanee beneen thème bu am solo muy la maladie drépanocytaire ñu gën koo xam ci drépanocytose ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp soxna. gannaaw bañ la nuyoo ba pare euh, euh, sëñ euh, Daouda.

Nyomit it mun nañ koo jëlee seen yaay ak seen papa nga xam ne kon day topp benn benn génération mu doon benn feebar boo xamante ne dafay affecté maanaam day dal li ñuy wax hémoglobine bi ku ne xam ne rôle bi hémoglobine du joué maanaam jël oxygène bi yóbbu ko ci tissu yi loolu ñuy permettre ñun ñuy dox normal di wax normal nga xamante ne du ñu gaaw a ndax li hémoglobine war a joué yëpp ngi koy li dal drépanocytaire bi mom moom hémoglobine bi moo baaxul te eh, hémoglobine bi li tax baaxul dafa am benn mutation maanaam benn substance bu fa nekk ñu di koy wax acide glutamique moom la ñuy remplacer ak benn substance ñu koy wax valine léegi bu ñu ko remplacer dara globule rouge bi maanaam forme bi mu waroon am dootu ko amati nga xam ne boo xoolee dafay mel ku bindoo forme S alors que globule rouge bu normal dafay rond. léegi boobaa ci la ñuy naan nit ki am na drépano bu drépano globule rouge bi xawee form am forme forme bi ñuy wax forme S. d'accord kon mën nañ wax ne la drépanocytose feebaru héréditaire la maanaam feebar boo xamante ne si gène lay jóge maanaam mun na jóge si maam yeeg yaay yeeg papa yi ba dellu si si ki nga xamante ne moo di xale bi ba si nga xamante ne moo di sët bi kon mën nañ wax ne loolu mooy feebaru drépanocytose comme euh, danoo dégg nag am na ay différents types. yoo xamante ne dañuy wax ñi naan kii drépanocytose bii la yor kii SS la yor kii AS la yor euh, lan mooy euh, différence bi ak euh, lan mooy différence yi nga xamante ne mooy drépanocytose yi nga xamante ne ñoo am. waaw drépano bëri nay forme bëri nay pàcc ci biir a biir nga xam ne dafa dafa xóot waaye buñ ko mënee simplifier rek mun nañ koo tënk ci ñaar mooy bi ñuy wax trait drépanocytaire ki am trait drépanocytaire moom day am hémoglobine A mooy hémoglobine bu baax bi. am hémoglobine S maanaam hémoglobine bi nga xam ne mooy dal ki am deret léegi comme hémoglobine A bi moo nga fa hémoglobine A bu moo ngi ëpp doole hémoglobine S bi nit ki du ko teree dund li mu war a dund maanaam di dox normal moom la ñuy wax tere deret kooku amul benn jafe-jafe su la xamu ko sax moom si jëmm boppam mën naa dox te du ko xam nga xamante ne su fii nga dafay analyse pour gis ne dafa am tere deret panocytaire AS. boo koy wutaleeg nag da nga koy wutaleeg li ñuy wax les syndrome deret panocytaire majeur ci biir foofu nag am na lu ñuy wax forme SS ñun xam naa ne suñu émission bi sax ci la ñuy gën a insisté wu muy la forme SS am na forme bi ñuy wax S am na forme bi ñuy wax SC. waaye yemul foofu amaan na yeneen forme yu gën a xóot xam naa waaye pour simplifier ngir mbokki téléspectateurs yi mën cee euh, génneeku sukkandiku ci ci lu gën a gaaw rek ñu tënkalee leen ko noonu ñu xam ne tere bi moo am ak les syndromes drépanocytaires nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a soxor ko bële. d'accord kon euh, mun nañ wax ne am na ay façon yu bëree bëree yoo xamante ne rek drépanocytose yi ñu ngi leen koy tuddee kon mun nañ wax ne bi nga xam ne moo gën a fréquent mooy bi nga xamante ne mooy SS bi comme ni ko waxee sànq ndaxte en général moom la ñuy faral di gis sa lu bëri ci biir hôpitaux yi gannaaw ba nga xamante ne xam na li nga xamante ne mooy euh, différente ci biir ndax mën nañ xam les symptômes. waaw soxna Anta heureusement ba que euh, Dérépano doon na faire boo xamante ne mën nañ ne race noire la gën a yeb race noire ndax boo xoolee consanguinité yi fii la ëppee maanaam sëyu mbokk yi moo tax Dérépano gën a yeb population africaine waaye lu mu fi bëri bëri heureusement forme SS doon na form boo xam ne xaw na néew boo ko comparé form AS. léegi nag ni muy mandar mandargay drépano surtout type SS bi nga xamante ne moo gën a soxor dañ koy tuddee si nourrisson bi maanaam xale bi doog a di judd jàpp deux mois syndrome pied mais la koy def maanaam xale bi day yeewu nga gis ne loxo yi day néewi ba pare di métti tànk yi néewi di métti tuméfaction bilatérale ñaari loxo yëpp lay jàpp ñaari jàpp ñaari tànk yi loolu lay commencé loolu bu ko xale bi amee boole kook ay jooy dangay ngay suspecté drépano après nga yóbbu ko hôpital ñu si ko ki nga xamante ne moom la ñuy wax grand enfant maanaam jàpp trois ans ba dix ans biir buy métti la koy dikkee ñun nag tàmm nañ bu xale biir bu di métti rek ñu naan daa lekk suuf ak wala jël garabu sànni ko ko yan bu buñ ci yem léeg-léeg nañuy dem hôpital pour ñu xool biir buy métti boobu ndax nekkul drépanocytaire bi dee mag ñi nag sama classe gi euh, bu bu ñu amee drépano maanaam mal partout maam day ñëw ne la sama fépp mooy métti sama yax yeeg sama biir beeg nga xam ne kii njort nga ne am na dérépano boo ko laajte it mun na la ci famille bi waaw sama papa dafa dérépano wala sama yaay dafa dérépano bu dee parents yi tere lañ am it du ko du ko du ko du ko mën a xam daanaka noonu mooy mandarga bi mu leen di dikkee. d'accord kon mën naan wax ne rek euh, ñi nga xamante ne moo di sëyu mbokk yi yu jege yi dafay andi li nga xamante ne moo di dérépano euh, li nga xamante ne moo di dérépano kon nag ñu dem si li nga xamante ne mooy diagnostic bi. ndax euh, pour nga xam euh, dem xam na li nga xamante ne moo di symptômes yi euh, ba nga ni ko définir lee ba pare lan mooy diagnostic bi nan lan war a mun a poser ne kii nii drépano la am réellement. waaw pour diagnostiquer drépano mooy ni wax sànq rek nit ki day ñëw ne la dama am ay métit nga interroger ko nga xam ne kii probablement njort nga ne ni am na lu ñuy wax maladie drépanocytaire ci noonu ci nga koy laajee ci famille bi ndax sa papa ak sa yaay dañoo bokk. ñaareel mu ne la dañoo bokk ñaareel tamit mu ne la bokkuñu dara waaye doon na faire boo xam ne li ci ëpp day laal euh, day laal famille day laal famille ci noonu mu wax la fi koy méttee li koy métti nga commencé dugg yow médecin bi ci examen d'orientation yi maanaam nga demandé li ñuy wax hémogramme xool numération bi mu wan la anémie ak mandarga anémie normochrome normocité régénérative ni ñu koy tuddee ci suñu langage nga dem def frottis bi mu mun na la wan ay drépanocytes léegi nga def test demel boo xoolee daanaka jigéen ñi bu ñu tollee diggante sax dañuy demander test demel pour def diagnostic maanaam pour am benn aperçu si drepanum nga xam ne test demel boobu dina la mën a wax ndax am na est-ce que am na euh, gémo des globules falciformes ou pas léegi nag pour nga confirmer diagnostic bi il faut que nga def électrophorèse de l'hémoglobine électrophorèse de l'hémoglobine moo la mën a wax ne la kii dafa drépano léegi bu dee répondant la am ndax S bêta thalassémie noonu la ñuy posé diagnostic de drépanocytose. d' accord kon nag pour nga li nga xamante ne mooy diagnostic euh, moo di bu tànk la dafay jàpp li nga xamante ne moo di euh, loxo yi day am édem maanaam dafay neewi euh, mu fagal biir bi di metti ñuy jàpp ne. ay saan yaak yooyu noonu kon loolu bu ko dalee rek war na mën a dem seeti li nga xamante ne moo di docteur bi pour euh, mën a xam exactement ban feebar moo ko dal kon ba gannaaw ba nu demee foofu ñu dem si li nga xamante ne moo di complications yi rek quelles sont les complications yi nga xamante ne nit ki nga xamante ne am na drépano yan complication la ko war a mën a indil ak yan jafe-jafe waaw complication drépano manam buñ ko dee xaaj dañ koy xaaj ci ñaari complication muy complication yi am mën na joni joni ak complication yi nga xamante il faut que maladie bi di wey pour complication yi mën a dikk léeg sax ci complication yooyu ci lañuy xamé ni nit ki dafa am drépano bu ñuy investiguer di investiguer ba gis électrophorèse bi wan profil SS bi comme ni ñu ko waxee trait drépanocytaire moom loolu sonalu ko SS yi la gën sonal ci complication aiguë mom maanaam complication yi nga xamante du yag mu dal doom ki am drépano bokk na ci crise vaso-occlusive CVO yooyu buñ ko mënee tënk mooy ay douleur yoo xamante ne day jékki sono doomu aadama bi maanaam ñoom sax boo leen di laaj dañ naan la métit boobu ku mu dalul munoo xam ni mu mel nga xam ne day métti ba jégg dayoo boo ko dee laaj ne ko ba xam fii la yem danaan la yemu fa weesu na ko di dem fu mën a jàpp nag bëri na mën na jàpp tànk yi mën na jàpp loxo yi mën na jàpp euh, bopp beeg yu demee noonu nga xam ne boo laajtee ci ginnaaw sax mën na ne la dama doon. foow ak wala dama nekkoon ci ngelaw li xam naa loolu après nañ ci dikkaat ci ci ci facteur déclenchant yi à part crise vaso-occlusive yooyu di gën a sonal des répondants yi bokk na ci syndrome anémique comme ni ñu ko waxee anémie doon na loo xamante ne euh, bu amee rek doomu aadama bi day am jafe-jafe ngir dox ni mu daan doxee normal ndax deret ji rôle bu am solo bi muy ci doomu adama bu wàññee ko rek ay jafe-jafe la complication anémique yooyu sonal na des yi beneen bis mooy complication infectieuse yi des répondants yi ñaareel dañuy faral di def ay infection li koy expliqué nag xëy na mooy aspect ni fonctionnel bi ñu am muy état d'immunodépression ndax drépanoy ñaareel dañuy faral di am rat rat boo xamante ne dafiy nekk waaye rôle bi mu war a joué dëgg-dëgg du ko joué aspect ni fonctionnel boobu nag mooy waral parfois ñu am complication infectieuse infection à germe wala mu doon infection à germe spécifique nga xam ne day jër mu ñëw hôpital ñu hospitaliser ko ngir mën a traiter infection boobu noonu gannaaw bi ñu jugee ci complication infectieuse yi am na lu ñuy wax syndrome thoracique aigu maanaam drépano bi day jékki rek dënn bi commencé métti wala mu commencé tëqat yu demee noonu am jafe-jafe nooyi nga def rajo bi gis ne am na ay tawat wala boog ay jafe-jafe yu nekk ci poumon yi loolu la ñuy wax syndrome thoracique aigu mu doon complication majeure drépano à part complication aigu yooyu noonu am na complication chronique bokk na ci ostéonécrose bilatérale ou bien ostéonécrose euh, aseptique de la tête fémorale mën na nekk unilatérale comme mën na nekk bilatérale loolu bu ñu ko mënee mooy yax bi nga xamante ne doomu aadama fa lay toogee comme deret ji li mu fay ñëw bariwul day commencé di ñàkk doole di ñàkk doole di commencé di fënax nànk-nànk ci noonu lay dem ba mën na tax tànk bi du ko mu perte ko. beneen complication bi moom la ñuy wax lichage de la vésicule biliaire mu nekk fii ci ci ci kii bi te ku ne xam na waa fosse iliaque bi te wextaan moom ñëpp dinañ ko dégg muy bile. bu amee ay kayoo ay calcul wala ay xeer yu nekk ci ci foofu moom la ñuy wax lichage de la vésicule biliaire nga xam ne traitement bi faaw nga dem opérer moom mook ostéonecrose ñooy am bokk na ci complication yi l' accident vasculaire cérébral nga xamante ne day indi paralysie ci doomu aadama bi mën naa ne son installation sax est brutale mais fa muy jugee moo moo sori moo tax ñu mën ko dugal léeg-léeg ci complication aiguë parfois tamit mën nañ koo dugal ci complication chronique yi bokk na ci aussi ischémie mésentérique yooyu yëpp ay complications yoo xamante ne mën na survenir te comme anémie lañ wax ku ne anémie wax xol bi day battre lu bëri ngir compenser manque deret boobu mën na dem ba indi insuffisance cardiaque donc doxee li ñuy wax cœur anémique loolu it bokk na ci complication yi mën a

ndax bu leen daal dal dañuy sadd saddeek ndax métit bi duñ ko mën a téye gars yi demoon bu classé ko ci feebar yoo xamante bu ko nit ki amee tem sax ñu gaafal ku jigéen ki ne ko yaa fi indi yoo xamante ne kenn du ko xam léegi dem na ba tabu boobu noonu gars yi génne nañ ko ci société bi ki am drépano am na espérance de vie bu ko mën a permettre mu dund plus de cinquante ans man je parle en tant que praticien on en a vu ay drépano yoo xamante ne am nañ cinquante ans am ñoo xamante ne am nañ soixante ans kon li ñaan naan du mën a àgg foofu noonu dañuy wax lu leen neex drépano yaa ngi fi ñoo ngi dund normal comme doomu aadama yëpp ñoo ngi am at yi nga xamante ne ni doomu aadama yi ñoo ngi koy am te tereewu leen def seen dund ñoo ngi yor si ay cadre doon ay fonctionnaire doon lépp loo xamante ne bëgg nañ ko ci société bi kon loolu nañ ko génne ci bopp gars yi. Euh, euh, ni ñu ko waxee rek ki am drépanocytose mën na dund at yu ko soob euh, maanaam bu toppee traitement wam normal dem ci hôpital yi di topp traitement wam bu ko defee dina mun a dund li nga xamante ne moom la ko yàlla mooñaaleel kon mun naa ko waxee noonu wante tamit dégg naa aussi ñu ne ki nga xamante ne dafa am drépano bu amee ñaari doom wala benn doom rek dafay am ay jafe-jafe mu amaat yeneen. benn tout tànk est-ce que loolu wax bu wér la wala. waaw ku ne dérépano ak euh, tollu diggante lu xaw a complexe la moo tax ku am dérépano dañ naan kon na nga jege spécialiste bi. spécialiste bi mooy le plus souvent hématoclinicien bi ki nga xamante ne hématologue la ba mu mënta dem ci hématologue bi na dem ci interniste bi nga xam ne daanaka ñaareel ñoom ñooy gën a mën a tënk maladie boobu noonu ndax nit ki bu demee ba toll ci diggante ku ne xam ne ne grossesse dafay laaj ku jigéen ki am sang sang boo xamante ne dem mën dundal lim andak ak ku ne deret pano wax manqué deret kon gis nga ne day doon benn contradictoire day indi jafe-jafe mais bu suivre na ay ay traitement di dem rendez-vous normal ñun on se fixera un taux d'hémoglobine boo xamante ne durant toute la grossesse ku jigéen ki loolu lay am dina ko may mu def grossesse normal dina ko may accouchement bi dañ koy préparer ndax drépano buy accoucher bokkut ak ñi nga xamante ne nii na amuñu drépano te loolu ak avancée de la médecine ak jumtukaayu xarala yi permettre nañu soxna yi am drépano ñoo ngi accoucher normal sans jafe-jafe ndax bu amee tout tànk pour amaat tout tànk day jafe loolu it du loo xamante ne nii des na koo nangu ndax bu dee accouchement ba mu defoon jaar na yoon moo xam par césarienne la parfois am na ñuy def par voie basse bu dee jaar na yoon mu toog noppaliku li mu war a noppaliku balaa muy jëlaat beneen ëmb mun na koo permettre mu accoucher waat accouchement bu jaar yoon am ay doomam ni mu ko waree. de l'olit pour wax en tant que praticien on en a vu des réponses ay SS am seen i di normal ba seen dom mag di len teral taar fakal kon euh, muy loolu rek comme ni docteur Niang waxee di len di fàttali rek ngi ci une euh, émission la santé d'abord tey nous thème du jour nek la drépanocytose ñuy waxtaanee fi nga xamante modi ci di si euh, télévision Makhama TV kon rek ñu dem si suñu dernière question docteur moi le traitement. waaw xamna bala ñuy dugg soxna Anta ci traitement maladie drépanocytaire dañuy njëkkee maanaam joxe ay conseils surtout si bilan prénuptial yi am na ñu koy exiger mais am na ñoo xamante ne daf leen cas mooy balaa ngay takk soxna si yow nga xam ban profil nga ndax profil AS nga wala profil SS nga ku jigéen kiit noonu waaye comme niñ koy waxee rek comme bëggeel amul frontière qu'importe nu ci mënti demee dina du tee du tee du tee ñu ñu ñu sëy waaw te Sénégal farata luñ loolu ndéem loolu nag mënta ñàkk waaye li ñuy li ñuy li ñuy ñaax rek mooy sëy yi nga xamante ne dafa jegentoo gis nañ ne ci sëy yi jegentoo la gën a la gën a kii te ñun senegal am nañ habitude boo takkul sa mbokk rek pour ñoom takkuñu kenn waaw sama doom bàjjan la yooyu dañ ci ñaax bu baax maanaam nañuy xool bu baax ndax famille bi amul feebaru deret ndax bu xasee am rek des fois jafe-jafe mën naa am ay xale yu judd am dérépanoog yi ni mel beneen bi ki nga xas na xëy na suñ borom natt na ko ba am na maladie drépanocytaire li ñu koy ñaax mooy na dem teel a dem ci centre spécialisé bi surtout bu dee SS la ñu commencé ko suivre bu ñu xamee dossier am ndax ñaareel xale yi nga xamante ne bu ñu juddoo ba keroog ñu am 15 ans fii ci Sénégal ñoo ngi leen di suivre hôpital Albert Royer fa lañ leen di suivre bu ñu demee ba 15 ans ñu doog leen a centre national transfusion sanguine ñu dem continuer seen suivi foofu boobaa dinañu permettre ñu xam dossier malade bi fan la jugee lan mooy taux d'hémoglobine am de base lan moo ko gën a sonal ci ay complications ñun ci noonu ci la ñuy sukkandiku ngir mën koo jox traitement bu mucc ayib ñuy respecter seen rendez-vous nga xam au début seen rendez-vous yi dañ koy jegele ay benn yoon ci weer bi bu ñu demee ba maîtriser malade bi benn yoon daanaka da ngay gis koo xam ne benn yoon sax lay ñëw si at bi. ci at bi nga xamante ne day man vaquer ay occupation normal sans jafe-jafe léegi nag bu ko defee complication bu ci jug wala boog lu ci mënti am ñu dinañ ko mën a traité à temps ba mu ba mu bañ a àgg ci complication chronique yooyu noonu waaw loolu daal la ñuy gën a ñaax ñi nga xam ne am nañ ko nañu gën a respecté waat seen rendez-vous yi ñi nga xamante ne amaguñ ko nañu xool ci entourage bi ñuy seey yu demee noonu. jaajëfal nañ la bu baax docteur ñaar di la wax ne fii la ñuy yemandi ak yéen si seen émission la santé d'abord ñu doon waxtaanee li nga xamante ne moo di la drépanocytose docteur ñaar gannaaw ban la santé bu baax a baax si occupation bi nga xamante ne occupé nañ la ko di la ziaraat wër di la wax nga jox ñu rek mot de la fin. Euh, di la wax ne rek jaajëfanal la tamit bu baax a baax. waaw soxna Anta xam naa ñoo ngi santaat bu baax ci kóolute gi ngeen am suñu suñu suñu suñu suñu nit ku xeebu kii nga xamante ne daanaka dañuy jéem rek. te it euh, di santaat bu baax waa Maqaama TV ci liggéey bi nga am solo bi nga xamante ne ñoo ngi koy liggéey ñëpp di ci teg seen bët di wax ne yàlla na ko suñu borom jëmale kanam maanaam ba fépp fu ñu fa bëgg àgg rek ñu àgg ko fa di ñaaxaat population bi di wax ne santé moom kenn mënu koo jënd. kenn mënu koo jënd kon lu way def ba mën ko préserver rek jar nako kon nañuy xolaat suñu bop nañuy dem kër docteur ñu ñuy sét ak yu démé non bu ko défé lepp lu ñu dal rek dinañ ko mëna jël en temps bala muy ëppi loxo kon ñoo ngi santat bu baax di leen gërëmaat di gërëm mbokk téléspectateur yépp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ومنزل الشفاء